Bienvenue sur Salam Vision. kon may leen ñu ñaan may leen ñaan doyen may leen ñaan ñu fas yéene ah. Hmm? non parle rek après ñu jël def en même temps bon c'est bon c'est bon gars yi ah waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ku nekk sa tur ak sant donc euh, comme niñ ko waxee rek embouteillage yi ñoo retenir ñu bari si ñu bëri quoi si ñun mais comme salle bi aussi capacité d'accueil bi mënul weesu fii donc du mobilisation du meeting la ñu convoqué ñoo convoqué rek bon kii invité nit ñi pour ñu def euh, benn déclaration de presse pour won à l'opinion nationale et internationale suñu activité yi ñuy def donc maa ngi ku nekk sa tur ak sant di euh, ah, waaw waaw maa ngi tudd Arona Sarr euh, nekk coordonnateur général mouvement du peuple par le peuple et pour le peuple M3P donc loolu mooy mouvement bi loolu mooy donc si si dinaa après ci wolof bi n'est-ce pas léegi damay liir déclaration bi suñu paree après ñu ñu def ñu kii quoi ñu laal ko ci côté wolof bi après gars yi ñu def question réponse très rapidement après ñu kii clôturer donc euh, mesdames et messieurs très chers invités très chers militants du mouvement. Déclaration du mouvement du peuple. Déclaration du mouvement du peuple par le peuple et pour le peuple. M3P. Pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'émergence de notre très cher pays, le Sénégal, pays de la Teranga, nous, le m 3 après avoir fait des observations et des analyses profondes et particulières de la situation politique, économique, sociale dans les différents plans en tant que des citoyens sénégalais, républicains et patriotes, partisans de la paix, de la démocratie et de la stabilité de notre, notre très chère nation, le Sénégal, nous avons pris l'engagement ferme de créer ce mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple M3P pour lutter farouchement pour la défense de nos institutions et des intérêts du peuple sénégalais pour la paix, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, l'équité territoriale et sociale pour le développement harmonieux et durable de notre très chère nation, de Sénégal. Vu l'importance du plan Sénégal émergent, PSE, vu le respect des engagements que le président de la République Son Excellence M. Macky Sall et son gouvernement ont pris et respecté lors des différents conseils des ministres délocalisés dans les différentes régions du Sénégal, vu l'expérience, la compétence, le respect, la considération et l'aura que le Sénégal et l'Afrique ont eu à travers le leadership du président Macky et de la République du Sénégal et de l'Union africaine, son Excellence M. Macky Sall, vu la bonne gouvernance, vu l'engagement inlassable du président Macky Sall pour l'équité territoriale et sociale au Sénégal et en Afrique, vu les différentes actions sociales qu'il a menées et continue de mener à l'endroit des pauvres et des démunis, jadis exclus de la société sénégalaise et africaine, vu les grandes réalisations que son Excellence et son gouvernement ont menées sur les plans des infrastructures, de la sécurité, de l'éducation, de la formation, d'éthique, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du sport, du transport aérien, portuaire et terrestre, vu les programmes réalisés par le PIDC, le Promoville et le Piment, vu le retour de la paix en Casamance depuis l'action du président de la République du M. Macky la tête du pays, à la tête du pays, vu la diminution à 80 pour cent des inondations, des coupures de l'électricité et de l'eau sur l'étendue du territoire sénégalais, vu la lutte qu'il a menée, lui et son gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'émigration clandestine, vu son engagement inlassable qu'il a, qu'il a, qu'il a fait, lui et son gouvernement, pour l'exploitation des premiers barils pétrole et de gaz, les 1000 milliards la force Covid 19 dégagés pour aider les populations sénégalaises. Vu les indicateurs, vu les des indicateurs de la croissance du Sénégal à deux chiffres en 2023, vu les 450 milliards dégagés pour le programme Xëyu Ndaw ñi, vu les plus de 400 000 emplois qui ont été créés pour les jeunes et les femmes, vu les financements de la DER du DR, de la DRFJ, du FONGIP, du FONGIS, etc., vit tous les projets et programmes faits pour les femmes dans le cadre des formations de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes, vu les différents programmes de modernisation des sites et des cités religieuses et la construction des mosquées et la réhabilitation sur l'étendue du territoire sénégalais, vit son bilan très positif qu'il a triplé par rapport à ses prédécesseurs depuis son accession à la magistrature suprême, nous, les représentants agissant au nom du pour le peuple par le peuple, nous déclarons solennellement notre soutien indéfectible à la candidature du président de la République, son Excellence Michel Maxel, à l'élection présidentielle de 2024 pour la consolidation des acquis et la finalisation de nos grands projets et programmes développement du Sénégal pour l'émergence. Nous portons à la connaissance des familles religieuses, à la communauté africaine et internationale, notre refus catégorique de laisser certains de nos concitoyens et une opposition mal intentionnée de porter le discrédit dans nos grandes institutions républicaines pour la déstabilisation de notre très cher pays, le Sénégal. Nous disons non à la violence, nous disons non à la guerre civile. Ce n'est pas à l'opposition minoritaire et à certains de ces organismes partisans de valider ou d'invalider la candidature de son Excellence, M. Maxel. Cela relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Au vu de tout ce qu'il a fait sur tous les plans et à tous les niveaux pour le développement et l'émergence du Sénégal, Le président de la République, Macky Sall, n'est pas mais c'est nous, les citoyens sénégalais républicains, patriotes, parce qu'il y a deux sortes de patriotes, des patriotes destructeurs et des patriotes constructeurs. Mais nous des citoyens sénégalais républicains, patriotes constructeurs. Je parle de ces, de ces, de, de ces, de ces patriotes. Du peuple qui réclamons une fois de plus sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement le président de la République, M. Maxal, d'avoir écouté et gracier nos très chers compatriotes, M. Karim Wad et Khalifa Sall. Également, nous souhaitons vraiment que ces leaders politiques soient amnistiés pour lutter la cohésion du peuple. Pour terminer, nous lançons un appel à tous nos compatriotes qui adhèrent à notre cause à se joindre à nous pour soutenir la candidature du président Macky Sall en 2024, le seul candidat crédible. Aussi, nous lançons un vibrant appel à tous les candidats civilisés, non violents, de déposer leur candidature pour proposer au peuple sénégalais des projets de société, des programmes et des débats démocratiquement pacifiques pour la conservation, pour la conservation pour la conservation et la consolidation de la paix, de la démocratie, de la stabilité et de l'émergence de notre très cher, très cher, pays, le Sénégal Sunugal. Vive la jeunesse progressiste du Sénégal, vive les vaillantes femmes, les ligueurs des temps modernes, vive le président Maxel, le choix et le candidat et la confiance du peuple sénégalais. Vive l'unité, la paix, la cohésion et la concorde des citoyens sénégalais républicains démocrate, patriote, constructeur. faire Dakar le 22 mars 2023 euh, maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sant. Ah, donc euh, ginnaaw bi ñu euh, sant yàlla sunu borom julli ci Seydina Muhammad ya Rasulullah sallallahu alayhi ñu ngi nuyu ku nekk sa tour ak sant comme niñ ko waxee mouvement bi. mouvement national citoyen la soo gisee ñu créer ko parce que am na de bons patriotes am na de mauvais patriotes am na des patriotes constructeurs et des patriotes destructeurs mais ñun ñu ñu ngi tudd le mouvement du peuple par le peuple et pour le peuple M3P ñun nous sommes des citoyens républicains patriotes constructeurs parce que tey amoo lu gën amuñu lu gën sunu Sénégal amuñu lu ñu gën sunu Afrique kon vraiment nit pour passer intérêt crypto personnel waru leen wax da ngeen di déstabiliser le pays di yàqal jigéen ñi di yàqal jeunes yi pour seen intérêt personnel ak yeneen peut-être puissance yi nga xam ne comme ministre de ni mu ko waxee ay force occultes ñu ngi ci ginnaaw kooku duñ ko nangu parce que nous disons non à la guerre civile ñaanu ñu ko yàlla jàmm ak salaam lañu ñu bëgg. léegi nag bu loolu passé merci bu loolu passé mouvement bi mouvement citoyen la parce que soo gisee ñu créer ko dañoo bëgg un défendre intérêt les institutions de la République Sénégal parce que vrai ay institutions yu solide la ñu am ñun Sénégal par rapport ak beaucoup de ces pays sur le plan continental et sur le plan international deuxièmement am na ñi nga xam ne tey soo seetee ci ay parti politique la ñu nekk mais le peuple sénégalais dafa tumuranke mais soo seetee tey électorat buy voté mu mu dépassé wu ñu million mais lu des si soo waxee ay 17 millions de sénégalais kon plus de million millions yépp si le peuple sénégalais ñu nekk si tuuru ñooñu la ñuy waxee nous parlons au nom du peuple pour le peuple et par le peuple parce que tey mënuñu pour ay yenn politiciens yi. donc euh, ñuy seetaan ñuy yàq réew mi te amul kenn kuy défendre l' intérêt du peuple sénégalais kon nous nous parlons au nom du peuple di défendre les intérêts du peuple ak yooyu mais pour défendre intérêt peuple yi ñun bëgguñu changer parce que dañoo bëgg a changer duñ ko d' accord parce que tey président liggéey na liggéey na ñun ñëpp xam na ne juridiquement am na droit par rapport ak euh, kii quoi démarche yi ñu defoon. au niveau du de la cour constitutionnelle am na droit présenté wu ci loolu je pense que même moom keroog def na ci déclaration sur le plan international pour woon ne juridiquement ce problème de sa candidature est réglé léegi problème politique moo des ñun ay citoyens sénégalais lañu Macky Sall su liggéeyul woon ñun duñ ko nangu sax ñun ñu nangu en tant que ay défenseur di peuple sénégalais muy présenté waat mais soo gisee tey. ñu liir bilan am xam nañ ne bilan am ce sont bilan dafa super hyper positif parce que président Macky Sall li ñu fi lii yëpp fi lépp xeju fi n'est-ce pas donc loolu moo tax pour défendre intérêt du peuple du ñu indi ay nit yi nga xam ne dañuy ñëw pour déstabiliser le pays ñu leen di jox sunu kii parce que liggéey na am na droit cour constitutionnelle bu soobee yàlla dina ko valider parce que déjà juridiquement c'est possible c'est faisable kon kay léegi su fekkente ne. nit ñi ñoom ñu ne ay patriotes lañu ay citoyens sénégalais lañu mais pourquoi ñuy déstabiliser pourquoi ñuy saaga pourquoi ñuy yàq réew mi ñu ngi profiter occasion di remercier administration sénégalaise une vraie administration la ñu yore donc ñooñu mënuñu nekk ci administration di wax ñu ngi remercier les forces de défense et de sécurité de la sécurité parce que li ñuy def euh, loolu lu ñu war a def la. ñoom soo gisee ñu recruter leen c'est pour ñu mun a défendre les personnes et les biens di remercier ci au passage le ministre force forces armées maître Sidiki Kaba mi yore les forces armées moom moo yore les forces de défense et de sécurité ñu ngi remercier le ministre de l'intérieur parce que su ñu waxee ministre de l'intérieur bi mu ñëwee ba léegi lépp lu muy wax lépp lu muy def ci ay textes ci règlement la ko def kon nag pour que par exemple ñu bëgg a déstabiliser nit ki wala bëgg a déstabiliser institution yi wala administration loolu duñ ko nangu mais ministre de la justice ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal soo seetee ci Afrique ak si bi vraie justice la am su ñu amul woon de grands juristes de grands juristes est-ce que vous pensez que damay jox exemple ci maître Sidiki Kaba kon maître Sidiki dina nekkoon cour pénale internationale ñoom ñoo ko créé ñaata état. ñoo nekk membre ci cour pénale internationale comprend ngeen mu ñëw nekk ministre de la justice ñun ñëpp seet nañu justice Sénégal donc li mu war a def mais Sonko li gaa wax su fekkente ne parce que man am na li nga xam ne daf ma jaaxal yow nga ne bëgg nga nekk président de la république yow soo ñëwee ñëwee pour nekk président de la république da nga war a da ngay prêter serment nga ne yow da ngay respecter la loi respecter faire respecter la loi ak intégrité territoire bi ak yooyu mais yow bëgg nga nekk euh, kii quoi respecter la loi kii quoi président de la république bugguloo parce que moom su nekkoon vrai patriote la moom Sonko su fekkee ne vrai citoyen sénégalais la moom dafa war a respecter les institutions du Sénégal dafa waroon respecter la loi sénégalaise kon suñ ko oowee mu déplacé wu ñëw sans problème sans bruit lépp li nga xam ne justice ak kii ko atte na ko ñu xam ne c'est le droit qui a été dit parce que ñun ñëpp xam nañu ci tribunal yi ñu fi yore avocat yu nga xam ne vraiment yu xarañ la du sur le plan national du sur le plan continental du sur le plan international waaw donc loolu li ñuy wax fi parce que nañu xam ne pour euh, nous sommes un état un état un un état souverain indépendant et souverain Sénégal am nañ suñu souveraineté am nañ suñu indépendance du ambassade yenn ambassades yi wala par exemple ay président Macron wala président X ou Y ñoom ñooy ñoom ñooy ñooy intervenir pour investir déedéet ku képp ki nga xam ne bëgg nga nekk candidat mais déposer sa liste déposer sa liste parce que texte bi lu code électoral wax xam nañ ko nga encore nga si côté constitution bi su fekkente ne amuloo problème ak justice ak yooyu mais déposer sa liste ñun ñëpp xam nañ Sénégal démocratie majeure la soo déposé sa liste su fekkente ne bon gars yi validé nañ ko mais nga dem si course bi su fekkente ne validé wuñ ko parce que Macky Sall ci boppam dafay déposé comme tous les citoyens comme candidat yi moom su déposé cour constitutionnelle moo war a validé léegi nag du rajo yi du télé yi du sëriñ yi du Massamba du Mademba ñoom ñooy validé kuy validé mooy cour constitutionnelle parce que ñoom c'est des professionnels du droit kon kay jarul xuloo jarul xeet ku bëgg Sénégal war nga bëgg jàmm Sénégal ku bëgg Sénégal war nga respecter respecter les institutions de la République Sénégal ku bëgg Sénégal war nga respecter le peuple et l'intérêt du peuple sénégalais kon nag vraiment ñu ngi nuy ku nekk sa tur ak sant ñu ngi ñun daal ñu ngi leen xamal ne tey kilifa diine war nañ leen respecte parce que tey lépp lu ñu am ci Sénégal muy jàmm ak salaam yàlla kilifa diine ak famille diine yi la. parce que sinon comme yeneen kii fekke mbir mi pete na yàgg na kon nag naa leen wax benn mbir Sénégal ku ko moytuwul ak ñaan yi fi nekk loo ekkati day dellu sa kaw wallahi day dellu sa kaw mais kenn munul déstabiliser Sénégal am na ñi nga xam ne tey soo seetee ñoom parce que dégg nañu pétrole ak gaz bi nan la ñuy fexe ba écarter Macky Sall xam nga lu tax gars yi bëgg a comme soo see jëlee le cas de Macron ak yeneen gars yi ak yeneen gars yi soo xam lu tax ñu bu ko écarté parce que xam nañu Macky bañkat la il a de l' expérience prouvé na ko si Union africaine prouvé na ko partout ci àdduna mais ay Sonko yooyu ak yeneen gars yi amuñu expérience ñooñu tey dañoo bëgg ay Macron pour ñu amul expérience ñëw ñu mun leen nax pour mun a jël suñu pétrole suñu gaz il faut que le peuple sénégalais comprendre loolu fii nag képp ki nga xam ne ñëw nga fi nga ne da ngay dindi li nga xam ne famille yi famille diine yi lii lañu loolu la ñu parce que dañoo jàpp ci yàlla jàpp ci Seydina Mouhamadou ya Rasulullah sallam jàpp Seydina Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif si Serigne Touba si famille Laay ni Ñaseen yi ñoom Thierno Ahmad Tidiane Ba Gounass donc famille yëpp ku lim jum loolu lu ñu fi fekk ñoom fi ñu tegu foofu la si fekkente ne ba nga nekk candidat pour que ngay jàppal ay forces yi nga nak nu ngi sur le plan extérieur pour mun a ñëw say intérêt personnel ak ñëwñu déstabiliser loolu dindi famille diine yi kooku boromam ti bu soobee yàlla ñoom liñ leen wax nañu nekk ay nit yu civilisé ay nit yu civilisé nañu respecté sunu Sénégal bëgg sunu Sénégal jàpp sunu Sénégal respecté suñuy jigéen respecté suñu donc di ñaan président de la République son excellence monsieur Macky Sall di remercier au passage Mariam Faye Sall la première dame du Sénégal présidente fondation service Sénégal parce que gis nañu si le plan social li nga xam ne mu ngi koy def di ko jàppale nit ñi moom Mariam Faye Sall ñu ngi koy remercier très sincèrement très chaleureusement président Macky président Macky am na li nga xam ne je pense que jàppale na jeunesse bi jàppale na jeunesse bi ba léegi aussi nee na mu ngi préparé benn conseil présidentiel sur la jeunesse mais loolu respect la keroog 8 mars bi les femmes les assises affaire yi ngeen joxe woon mesure yëpp accepté na ko tey jigéen yi par exemple doole bi ñu leen doole ci Sénégal nekk ñu bëri amuñu ko ci Afrique ak si adduna bi lool du sant yàlla indi ay projet indi ay formation indi ay financement bon di créer ay mbir yi ko ci ay infrastructure ak yeneen ak yeneen mais lan la ñu bëggati ngir yàlla ñun président en tant que représentant di du peuple duñu mouvement de soutien comme politique de ñun mouvement citoyen lañu nous parlons au nom du peuple nous agissons au nom du peuple nous défendons les intérêts du peuple sunu candidat mooy président Macky Sall et gouvernement di remercier le le premier ministre Amadou Ba Amadou Ba et son gouvernement su fekkente ne ay ministre de vrai un vrai gouvernement la ñu am depuis bi président Macky commencé ba fu mu egg fii ñu ngi ñaan aussi euh, moom Macky comme borom yërmande la te bëgg na Sénégal respecté na sénégalais suñuy xarit mooy suñuy doomu ndey ñoom ay euh, l'autre laa ñoom Karim Wade Khalifa Sall gracier na leen mais na leen amnistie mu jeex. ñu ñun xamuñu dara lu dul jàmm salaam ñu mun a dem ci élection yu paisible ku léegi nag ñu ngi appel lancé euh, ñëpp au calme et à la sérénité ñu ngi remercier ku nekk sa tur ak sant di remercier merci beaucoup eyyi eh, mbiɗa eh, salmina mono fof inde mum e yettode mum euh, caggal nde jettuɗen allah julɗen e seydina mouhamadou ya rasulah sallam fof en beltima min o haruna donc ko min woni coordinateur euh, national mouvement Gotok, c'est un mouvement comme mouvement citoyen. Mouvement ONU est mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mouvement O, otakimo imade, que pour wade défendre institution humaine. Parce que wande ngandu da hande, pour intérêt mabé, pour intérêt mabé, hande toujours ɓe jiɗi ko bonnude leydi ndi eh, no haala haala bonka caggal leydi mais caggal leydi wona kamɓe jeeyi leydi ndi leydi ɗo eɗen jogii indépendance ɓen ken état ba jogiiɗo souveraineté kono enen kala ko mbatten koye texte uji men e réglement ji men mbatten nde hay goto kadi wiyata sénégalais à la bonne gouvernance